auzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddaalin inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa xamilu saalihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bil sabr mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak mboolem njabootug Seexul Xaddim yépp di ñaanal seexi Serigne Touba yépp ak ñeneen fi wuutu ñëpp <coughs> di ñaanal it jëwriñ yi nga xam ni mooy jëwriñ Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha di sunu wasila di sunu lépp di ko ñaan gudd fan nga ànd ko wér ba naal yi mu naale liggéeyal maamam ji Cheikhul Khadim ak way juróom Cheikh Amadou Bachir sunu borom mottali ko lépp bi jaaxi Cheikhul Khadim di sant bu baax sëriñ góora ci dalal gii nga ñu dalal ngir waxtaanee mag ñu baax ñi fi nekkoon mu mel ni kon mag ñu baax ñi fi nekkoon suñ ci wax dañuy jël ki nga xamante ni bii mooy sunu wasila di sunu royukaay di sunu yaakaar yi tey ak ëllëg. muy a Cheikhul Xadim mu nekk jëmm joo xamante ni bii li may faral di wax ni <coughs> li alxuraan di wax ni wa annama fi l ardi min sajaratin aqlaam suñu jëloon garab yi nekk ci kaw suuf yépp gor leen def leen ay xalima wal baharu yamuduhu min bahdihi sab'atun abhurin jël géej yépp def leen ñu nekk ay daa ñuy sëpp di bind du tax ñuy xam kan mooy Serigne Touba kon mu mel ni jëmm la joo xamante ni bii buñ ci waxtaan dañuy toxale ci ñi nga xamante ni bii fekkante woon nañ ak moom jamono euh, bind ci moom ay téere yu bari lu ci mel ni Cheikh Mamadou Bachir euh, téere boobu mu bindoon muy mi nenul baaxil xadim am na ci beneen téere bu ñuy wax euh, Nahjul Xawim am na ci téere yu bari yoo xam te am bu ci benn naar bindoon tamit bu tuddoon am madul Abdullahi al Alawi mu mel ni kon njëkk feeñu Serigne Touba ci kaw suuf dafa nekkoon jamono ju doy war ndax dafa nekkoon jamono yi naxaate ak ndamu ak jaay doole ak xeexante ak njabarante mu mel ni alquran sax dañu wax ni daanañu ko jàng waaye daawuñu ko jàng it ngir jëm yàlla dañ ko daan jàng rek ngir puukarante wu ak di ci njabarante ak di ci xeexante am na ci ñoo xam ne ñoo wax ni sax alquran daanu ko daanañu ko mokkal waaye duñ ko mokkal it ngir jëm yàlla dañ ko daan mokkal ngir taaxuraan ndax bu yàggutu da daan dégg ñu ne ñu daan mokkal alxuraan dañ daan dem ba ci am pénc ñu takk lu mel ay dumbali keleng yu yëngoo suñ demee woote ba ñëpp wuy si leen ñuy taaxu daan alxuraan kon mu mel ni jamono yooyu jamonoy ceddu la ndax boo xoolee lii nga xam te ni moom la sëriñ Moussa Ka waxoon ci bayta moom wax ni lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawub jant fépp mel na làmbaay daan ne kenn amatul xas du li wacc lay ndax kaang ak i foori faf di jaani lay bu ñu waxee bu waxee loolu ba tudd ci làmbaay jamono yooyee làmbaay dafa bëriwul ay ceddu waaye na làmbaay bëriwul ay ceddu it am na ci ñoom suñu borom musoon na leen ba loolu musuñ caa dund ba loola ba léegi mooy dox ak ceddu nekkatu fa waaye jamono dafay ak ceddu am am nañu suñu borom musaloon ci loolee ba mus ñoo dugg ci ay caaxaan mus ñoo dugg ci ak ceddu mu mel ni kon jamono yooyee la gënoon a doon daraja mooy nga doon buur. wala ngay mbokkam wala ngay ab dagam wala ngay ab attekatam su ko defee da mën a am kóolute ci sa bopp ak ci sa njaboot ak ci sa alal ndax damay faral di wax ne nga bëgg buur buur bëgg laa gën ndax soo bëggee buur buur bëggu la amul solo waaye jamono joojee la gënoon doon daraja rek mooy nga doon buur wala ngay mbokkam wala ngay ab attekatam su boobaa nga mën a am kóolute sa bopp ak dal ci sa bopp soo fit dootu firfiri mu mel ne kon dañoo wax ni dañoo dem ba toll foo xam ne tubaab sax yi dañ fay yilifoon réew mi yilif gu metti dem ba àgg ci nit ñu ñuul yi bu ngi si ab tubaab dañuy daw ngir ragal leen ci seen bopp alal am na foofu sëriñ bi waxee ne wa minhum man in raa nasrani yaxsibhum min malaikati rahmani nga xam ne nit ñuul su musaan gis ab tubaab daan daan daw ngir jàppe ab malayka ngir ragal gu leen ragal kon mel na loo xam te ne lu yéeme yéeme la dafa nekkoon lu yéeme te jamono yooyu nag <coughs> ci la sëriñ bi feeñee ci kaw suuf mu nekkoon jamono ju doy waar jamono joo xam te ne tubaab yi not na nit ñi ci anam bu nekk nit ñi ragal leen ci seen bopp ak ci seen alal ak seenu njaboot ndax dañ daan am sañ-sañu jàpp nit ku ñuul dem yóbbu te duñ ci mën a wax dara kon ci jamono ju doy waar ci la Serigne Touba ñëwee ci kaw suuf waaye Serigne bi li bi mu ñëwee tamit li mu waxoon ne moo ko taxoon jóg mooy lil Moustapha nawaytu ma du sunnatahu al-xarra wa inni ahmadu gis na sunna sallallahu alayhi wa sallam mooy li ko taxoon ñëw wa sunnatahu insa rabbi ubayinu mu mel ne kon Sëñ Tuubaa li ko ñëw mooy yeesalaat sunna Yonent bi sallallahu alayhi li mu fi bàyyi woon ndax dañoo wax ne dafa tolloon sukuraat Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dundalaat leeralaat ko am ni jar kon Sëñ Tuubaa ci jamono ji mu ñëw ci kaw suuf dafa nekkoon jamono ju doy waar jamono joo xam te jamono ju métti la puukarante njabarante xeexante yooyu ci jamono yooyu ci la ñëwee ci kaw suuf mu mel ne kon Sëriñ Tuubaa mi ngi ganee àdduna ci Mbàkke Bawol loolu bindkat yi nga xam te ay borom xam li ay gëstukat ñoom ñëpp dañ cee maase kon daanaka du jar ñu ci sori ndax am na ko wax ne xat wulidal xadim xat saraxa sariatal muxtaari ama saraxa te mooy atum saraxa ci la Sëriñ Tuuba ñëw jamono ci Mbàkke Bawol mu mel ne kon bis bi nga xamante ne bii ci la sëriñ bi ñëw jamono kenn waxul ban bis la waaye am na ku ñuy wax sëriñ Abdourahman Lo moom dafa wax ni mi ngi nekkoon fukki fan ak juróom ci aw baraxlu ci la sëriñ bi ñëw jamono te loolu mi ngi tolloog 1852 am ci ñoo xam ne dañoo wax ni 1853 ci la sëriñ bi gane àdduna ba ci 1853 ci 54 waaye wax yooyu yëpp amul solo li ci am solo mooy gàddaa ga ca borom xam-xam yëpp dañ cee dëppoo ni ci la sëriñ bi gane àdduna waaye wax yëpp ci gën a wóor mooy 1852 ci la sëriñ Touba ñëw ci kaw suuf ban bis la bis boobu ni ma ko waxee woon ni sëriñ Abdourahmane Lo moom rek lañ wax ni bisub altine la tolloog fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu kan mooy way juru sëriñ Touba ndax damay faral di wax ni Eh, jëmm ju nekk su amee daraja ban di ko fàttaliku waaye nanu xool la ci ginnaaw muy ñaari juróom ndax yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni ci yuusufa ni al karim ibnul karim ibnul karim yuusufa aji tedd la di aji tedd aji ndax lan moo ko waral mooy yuusufa ab yonent la baayam di ab yonent maam di ab yonent waaye Serigne Touba nag woy juram wu góor mooy kan mooy Maam Mor Anta Sali sëñ Mamour Anta Sali way juróomu goo tuddoon maam Habibullahi maam Habibullahi am na ku ñuy wax Mouhamadul Kabir moo nekkoon way juróom Mouhamadul Kabir bi ma waxoon léegi nag moo moom lañ doon wax maam Maram moo sañcoon Mbàkke Bawal ci atum 1192 ci gàddaay moo tolloog 1789 ci atum tubaab ñu wax ne dafa am benn buur bu ko dogaloon foofa bu ñuy wax Amari Ngoone Sabel moom moo ko joxoon foofu waaye bi mu ko joxee foofu tamit taxul woon moom mu mën faa toogal boppam waaye ci la jëlee ab taawam bu ñuy wax Mouhamadou Farimata euh, euh, dëkkaloon ko foofee ci li nga xam te ni moom la sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko nettali woon ci ab téeréem ne waaye si Maam Mor Anta Sali mënu fa woon toog waaye ab taawam la jëloon euh, dëkkal ko fa ndax la ko waral mooy dafa mënu woon a toog jamono yooyu kon way sëriñ tubaa mooy sëriñ Maam Mor Anta waaye kan mooy way juram bu jigéen muy soxna jaaritullahi Mariama Bousso muy soxna su tedd soo xamante ni bii mu ngi bokk ci askanu bi nekkoon Gollare Bousso ci Fuuta ñu wax ni aw askanam ay sërif lañ ndax ñi nga dayoo ci eh, Seydina Asan doomu Seydina Aliyun karamallahu wajhahu kon Serigne Touba dafa am ay waajur yu tedd laataa mu ñëw ndax la ko waral mooy sëñ Maam Anta Sali dañoo nekkoon ñoo xamante ni bii alxuraan ak xam-xam rek ci moo nekkoon seen liggéey ñuy ay nit ñu set nit ñu sell duñ dunde lu dul seenu ñaq soxna jaaratullahi mi nga xamante ni mooy way juróom jigéen kazaaka comme noonu ni nga xamante ni noonu la way juróom bu góor woowee mel noonu la way juróom wu jigéen woowee mel kon mel Sëriñ Tuubaa dafa ñëw jamono ci ñaar ñoo xamante ni bii sunu borom daf leen a tànnoon ñuy ay nit ñu set moom mu ñëw ñettee leen sunu borom def ko mu ne kéemtaan ci kaw suuf kon xëy na bu ñuy wax ci moom dañuy wax ci moom lu gàtt loo xam te ni bii xëy na dañ ko tënk ci ay borom xam-xam yoo xam te ni bii ñoo ko nettali ci tuxale ci seeni wax ngir mën a wax ci sëriñ Touba waaye jëmmi Serigne Touba moom yaakaar naa ne buñ doon wax comme ni ma ko ci njàlbeen gi rek suñ jëloon garab yëpp sot ko ay xalima di bind ci mënuñoo tax ñu xam kan mooy Serigne Touba ci njàlbeen loolu. li ñuy wax ni sëriñ Touba ci diir bu gàtt wax na ni bi mu am fukki at ak ñaar ci la mokkal alxuraan waaye kenn waxut ni ci bis sàngam wala waxtu sàngam ci la sëriñ bi tàmbule jàng alxuraan waaye xam na ni ci waxtu wu gàtt ci la sëriñ bi mokkal alxuraan ndax fukki at ak ñaar bi mu jël wirdu xaadir boobu fukki at ñaar lam te boobu fekkoon na ko mu mokkal alxuraan kon ci waxtu wu teel ci la euh, euh, tàmbulee jàng alxuraan euh, kan moo ko dala jàng muy sëriñ Mbuso bi sëriñ Bousso bi moo ko dalal jàng ndax mooy ndijaayam eh, bi mu ko jàngalee ci diir bu gàtt nag ci la ko joxoon ko ñu wax sëriñ Tafsir Mbàkke Ndumbe Bousso mi nga xam ne mooy ndijaay yi soxna Jaaratullaah moom moo daan mujjoon jàng sëriñ Tuubaa ba ñu wax ni dafa dem ba tollu la taj daan asad naa si ci la wàcc ab liggéey bi mu wàccee ab liggéey nag ci la sëriñ bi delluwaat ci kër Maam Mor Anta Sali fekk Maam Anta Sali jamono yi dañoo wax ni maa nga ci sëriñ bi daal di wàññeekuwaat dellu ca kër way wayjur woowee nga xam te ni bii fa la ñëpp daan laxase jëm si fa di jàng si alxuraan sëriñ Tuubaa bi bi eh, sëñ tafsir moom liggéey mu dellu ci kër sëñ Mamour Anta Sali àggalee alxuraanam ba mu àggalee alxuraanam ba noppi nag fa la jàng xam-xam jàng fa téere yu bare bare bare ci moom ñu wax ni sëriñ Tuubaa jamono yooyu suñu borom da koo defaloon mu am li ñuy wax ni fasaanatu lisaan muy leeruk làmmiñ ak xel moo xam te ne sunu borom da ko koo jox muy xel moo xam te ne bi maanaam lépp lum tiim da koy daal di mokkal ci ak farloom ak ndimbalu suñu borom ndax yàlla mooy tànn li ko soob di tànn ki ko neex def ca moom la ko neex kon Sëriñ Tuubaa sunu borom moo tànn ci moom la ko soob def ko ci moom la la ko neex ñu wax ni jamono yi tamit dafa fekkoon Sëriñ Amadu Sali dafa nekkoon nit ku bar koo xamante ni bii aw làmmiñam dafa nekkoon buy wax day bar loolu day feeñ ci sëtam yi nga xamante ni ñoo fi nekk danga nga ci gis ñoo xam ne bu ñuy wax seen làmmiñ day bar kon nga ne deret moom du mës réer ci kaw suuf ndax seen maam joojee daanaka ci lañ seen deret nekkoon ci moom moo nekk ci ñoom kon loolu du lu hasard mu mel ne kon jamono yi nga xamante ne bii sëriñ bi jàng na ci moom lu bari daan def ay bayit di ko yoot yut ku ñuy wax xaalima jaxati kala ngir mu di ko toppal ndax euh, bariwaanal euh, ci ñi nga xam ne jaar nañ ci daara yi soo bindee kaamil yóbbu ko ñu di la ko toppal euh, Sëriñ Tuubaa nag danaan bind moom ay payit di ko jox xaalima jaxati kala ngir mu di ko ko toppal waaye dafa dem mu mujj xaalima jaxati kala daf ko wax ni ko mënatuma laa toppal waaye dee ma indil ma lay mokkal may mokkal mu leer ko ne kon raw na ko ci lépp ndax clé toppal bu mujj mën a leen indi may mokkal kon kooku xam na ne raw nga ko ci lépp kon foofu Serigne Touba noonu nii la doxee ci ak jaloom waaye ci biir njàngam moom it demoon na ba ñu baree bare bare ci waa kër si Mamadou Anta Sali yi xemmee ma jàngee ci Serigne tubaa ngir lan mooy ngir leeruk làmmiñ gi nga xam te ni sunu borom defal na ko ni ma ko waxee woon léegi te Mamour xam na ni waxam dafa bari woon lool. ci diir boobu it mu nekk foofu noonu moom Serigne Touba dañoo wax ni ci la taalife mawaahibul xuddus bi nga xam te ni umul baraaxin ci la moom la moom la ci doon woy ñu wax ni Serigne Mame Anta Saly jàngal na ko ay doom am na ci ñaar ñoo xam ne wax nañ ko seetee nañ ko ci ne Serigne Touba euh, Serigne Mame Anta Saly jàng nañu ko muy Serigne Thioro Mbacké ak Serigne Afia waaye ci la taalife jawharun nafis ak mu layinu sudur masaliku jinaan ñu wax ni mi ngi ko taalife Mbacké Bawol bi mu ñëwee Mbacké Bawol fi la ko taalife ñu wax ne am na tamit benn naar boo xam te bii mi ngi nekkoon njaañ mi ngi tuddoon Mouhamadul Yaddaali dafa jàng eh, li ñuy wax bayaan ak mantix suñ tuwaa daana fa dem dafa jàng bayaan ak mantix naar boobu it bi noppaloo it foofu lañ ko denc ci njaañ ñu bare bare ci kilifa yi xam nañ ko ndax ñaari léegi nga tawtaan waxtaan ak benn kilifa goo xam ne da lay xamal ni la naar boobu barabam ma nga njaañ am na ci kilifa yoo xam ne dem nañ fa ba siyaare ji ko ngir lan mooy ngir la fa sëriñ bi daan dem daan fa eh, jàng mu nekkoon nit ku tedd ku sell koo xam te ne bii eh, dem fa siyaare ko lu ama am solo la sëriñ sëriñ Bassirou mi nga xam ne bii di doomi sëriñ Touba wax na ci Minanul Baaqil Xadiim ne sëriñ sëriñ bi sëriñ eh, sëriñ kii ku ñuy wax sàmbalaw bi mi nga xam te ne bii jarabaat la woon ci Lat Joor mas naa ñëw ci sëriñ Mamoor Anta Sali bi mu ñëwee nekk ak moom ci biirub néegam tooga moom ci aw kaw ci kaw lalam di ko xamal ni dama bëgg ànd ak sëriñ Tuubaa dem ci sama kër ma jàppee ko ab sëriñ bi mu ko waxee loolu wax ko si moom Ansali si moom Ansali ne dafa woolu Cheikhul Xaddim bi mu ñëwee ne ko Sàmba Law mii kat dafa bëgg ànd ak yow dem ca këram mu jàppee la ab sëriñ def la comme ni ma ndijaayam la door def waaye sëriñ bi lam ko tontu mooy kon baax na ba mu génn ngir wormaal ko te nangu ko faa tontu leneen lu mu sëriñ bi bëggut bi nga xamante ne bii sàmbaloo bi waxtaan na sëriñ Mamadou Anta ba noppi ba génn fekk sëriñ Tuubaa ci ab der mu toog fa di jàpp bi nga xamante ni ñëwaat na tàmbalewaat di ko wax wàllu dem gi sëriñ bi nag xamal ko ne ko mënuma fay dem di fi bàyyi ñi nga xamante ne bii dañ fay ñëw ngir xam lu seen diine bi waxee loolu sàmbaloo bi ne ko comme demee na noonu it fas wi aw fasu naa dugoo la maa la ko jox addiya mu nangu ko ngir mu daarante moom waaye sunu borom li tax Serigne Touba sunu borom teel koo dimbali teel koo xamal lu bari gàngoor googu nga xam te ne moo àndal ak sàmbalaw bi da ci am ñett ñoo xamante ni bii sàmbalaw bi amal na leen kenn ku nekk borub téeméer bi mu joxee sëñ bi fas ba noppi ba wan ko ginnaaw ci la sëriñ bi wooluwaat ñett ñooñu téye leen jaay lu ci ñetti téeméer séddale ko ñoom ñett ñooñu kenn ku nekk ab téeméer mu mel ne kon ku sëriñ suñu borom teel a yee la ku sunu borom teel dimbale ndax ñett ñooñee amu ci kenn koo xam te ne ñëwoon na sëriñ bi di ko dis ndimbal ngir fayu bor booba ndax ku ne xam na ne buur ku nekk ak moom bu lekk sa la da ngay perte bu jëlee sa njaboot da ngay perte te lu mu jël ci doo taxaw amu fit di ko fayeeku waaye sëriñ Touba la sunu borom teel dimbali ci demee noonu mu far woo leen ñoom ñett ñëpp bi nu ñëwee mu daal di jaalu fasoo ci ñetti téeméer seddale leen ko ñoom ñëpp ñu àndandoo sant ci bi bu baax a baax a baax a baax a baax bi nga xamante ne bii lool yi am na mu nekk lu jaaxal ñu bare bare bare bare ndax jamono yooyu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa tumranke am ku mel ne la Joor am ku mel ne Sàmba bi ñuy wut si ci yow dara nga di leen gàntal loolu dafa nekk lu jafe am ci ñoo xamante ni loolu jaaxalu na leen lool waaye bi loolu amee tamit jamono yi nga xamante ne bii sëriñ bi mi ngi continuer nekk ci li nga xamante ne bii moom la ko way juróom euh, bàyyi woon teg ko ca muy jàng jàngale mu nekk ci ba ñu wax ne jamono bi nga xamante ne bii sëñ Mamadou Anta Sali mi ngi nelaw euh, di bisub talaata sëriñ Tuubaa dafa ñëw ba ci wetam ñaanal ko tarifa alquran ñaanal ko ci bi mu nelawee ba jël ko yóbbu ko deqale denc ko fa. kilifa gi nga xamante ni moo ko doon jullee muy Serigne Taïba Ndoumé Mar Sylla mi nga xamante ni moom moo ko doon taxaw fële ca deqale dañuy wax ne bi mu ko taxawoo ba noppi dafa wax mbooloo ma fa teewoon ñëpp ne leen dama bëgg ngeen déglu ma ma am lu ma leen wax ñëpp ne tekk mu ne ana sëriñ Bamba mu ne ko maa ngi nii mu ne ko jigéen si Serigne bi ne ko maa ngi dégg mu ne ko damaa bëggoon bu nu jógee fii jaar ca Lat Joor nga jaale ko sa wayjur wi te xam naa ni dina baax ci yow ndax dina am fu mu la teg bi mu waxee loolu ba noppi sëriñ Touba sant ko ci li nga xam te ni moom la ko wax ngir mu jaar ji ko ndax xam ni kilifa la te kilifaam la moom la jot mu sant ko ci ne xamal ko ne ko nag dem jaale ji ko moom lu mën a nekk la waaye nag dem ci bunti buur ngi dara adduna moom jomb naa loolu bi sëriñ bi waxee loolu ci mbooloo mi ci jataay bi ñëpp dañoo wax ne li ci am ñoo xam ne dañoo waxoon ni kii dafa wéradi wéradi ndax la ma waxoon doon buur wala ngay ab mbokkam wala ngay atte attekatam jamono yooyu mooy li gënoon a doy war ca ci misaal tey jii te Sénégal tey Macky Sall ma nga xam te ni moo yërif réew ma tey jii bu ñu tànnoon kenn woo ko téléphone ne ko président moo la soxla bu ko fekkoon teg boolu ceeb di di xéwlu sax ku dugg àgg ci jamono yooyu ci misaal ci Serigne Touba loolu la amoon. waaye bi mu waxee loolu nag ne leen nag dem ci bunti buur nga dara adduna jomb naa loolu ñu baree bari ñu tiit ñi jaaxle ñii di wax ay wax yoo xam te ne tegg na wut ngir jàpp xel ma dafa dem ngir li fi way juróom bàyyi ko bi coow li bare nag ba waxtu yi bare ak rumeur lu baree bari Sëriñ Tuubaa bind ak xasida ci tontu ñooñee mooy xasida gi di wax ne xaalu liir kan li abwaabi salaatini taawus jawaari sa tuxni kulla marini fa qultu asbi rabbi waqt afaytu bihi walaftu radiyal xayral ilmi wa diini wala su arju wal axsa siwaaya maliki li annahu jalla yux nii wa yunjini ba fii xasida ga jeexe di leen wax ni leen nit ñi de ñi ngay mën naan demal ci bunti buur kon di nga am lu jàppande waxtu wu nekk man ma ni leen yàlla doy na ma te doyloo naa ko yaakaaruma kudul moom te bu ma soxlaa mooy ki may fajal samay aajo te moomay musal ci lépp loo xamante ni bi ragal naa ko ginnaaw nag loolu yi bi loolu amee tamit ci la ñëpp gën a jaaxale ci mbiri Serigne Touba waaye teewut moom li nga xam te ne ci jamono yi Mamadou Ansali moom noonu la nekke woon muy di jàng ak a jàngale alxuraan Serigne bi ci noonu la wëy continuer ko di ca dox di ca dox di ca dox di ca dox ba jamono bi nga xamante ne bii euh, taxaw na ci bisu ajjuma boobu wax ne ndigal daf ma bàyyi ko fa yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te mooy di ma xamal ni ma naa yar sama gars yi ci xib ak mat te bàyyi njàngalem gase gi mooy tarbiya googu kon Serigne Gora loolu defe naa mooy bunt bu njëkk bi nga xam te ne bi moom la ñuy tàmbali ci euh, jaar-jaar yi Serigne Touba yooyu bu ko defee incha allahu rabbi ci beneen bunt bi ñu dellusiwaat ci eh, mën ci àggale kon ñi ngi sant bu baax tey gërëm bu baax a baax di ñaan sunu borom yàlla na nu sunu borom defal tawféex. ak dégg ak topp lépp lu ci te ñu xam ni sunu matadi la waaye lépp loo xamante ne bii lu ci kii la rek ñu sant ko sunu borom ak Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.